dafa am mbokk yu ñëw bëgg a amanteeg ñun ci yàlla te bëgg a jël wird de tariqa tijaan fii ñuy ubbee téereeb jawahirul maani ma ne dañu koy jox léegi wirde da nga ubbi téere bi wala da ngay ubbi téere bi joxe wirde bi bismillah kon nag dékk leen Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop mu joxe wirde bi ah alhamdulilah kuy bëgg a jël wirde kan la
Gora Sow Gora Sow waa Ayra Laaw la waa Ayra Laaw la ak Aboubacar Seck Gora Sow Aboubacar Seck ñoo bëgg a jël wirde kon gis nga Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop mi ma doon wax mu joxe ko bu amee ñeneen ñu ko jokk ci këram sax daf leen di yebal fii ma jox leen joxe leen ci moom kon teewaat na ne naa joxewaat ci moom kon nag dëkk leen te xam ne balaa ñu leen di jox charte yi jël wirde wi ñett la yàgg naa di leeral nag ñett yi benn bu nekk lu tax ñu wax ko waaye bu ngeen wéeteeg ñi ngeen àndoo dinañ leen ko leeralal ma wax leen rek ñett yi ku ko jël dootoo ko bàyyi bàyyi lan li gën ku ko am jàppal saxoo ak moom doo ko booleeg beneen wirde loo booleeg moom rek muy beneen wirde bu ñu xamee beneen tarix dala yàqal bii te du jëriñu ca booba ñetteel ba doo ziyaare benn waliyu bu dund wala waliyu wu dee lu dul waliyu tarixa tijaan lépp nag sa njëriñ rek a tax ñu wax la ko waaye du njëriñal Cheikh Ahmad Tijaan du njëriñal wirde wi sa njëriñ rek la nag te lu ca nekk yàgg naa di ca leeral waaye ngir bañ a guddal moo tax ma wax leen rek ne ñi ngeen àndoon dinañ leen leeralal lu tax ñett yi yëpp lépp ndigalal yàlla ak yonent bi la ku xas ba am ko jàppal bul bàyyi docteur sax boo ko gëmee wóolu ko garab yi mu la wax jàppal fonkal bul ko booleeg beneen garab boo bëggee sa wéru yaram doo ko booleeg beneen garab kon nag ci docteuru roox yi xam na li lay jëriñ wax na la ko jàppal bul booleeg beneen wér dab beneen tarixa keneen koo mën a jokk jàppal ne Cheikh Ahmad Tidiane la rek moo tax ñu xamal la ne kon koy ziyaare ni wali Tidiane jàppal ne Cheikh Ahmad Tidiane rek la kon ñett yaa ngoogu ndax nangu ngeen ko Aboubacar nangu nga ko góor a nangu nga ko dégg leen Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane jox leen wér dab jox naa leen wirde tariqatu tijaaniya lazim bu zikr zikrul jumaa wax leen alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah ñaanal ko
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الجواب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرك والإحسان العظيم هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم استفتاحا والخير علما بركة المعارف اللهم إنا نتقرب إليك بهذه الصلاة نستأذن للتعاون في هذا الكتاب الجليل حول الشيخ الجليل وصعوباته ومعارفه وإشاراته ومناجاته السائلين من فضلك وجود كرمك أن ترزقنا الفهم عنك وعن الشيخ في الأولي وعن خلفائه وأن ترزقنا التوفيق وتجنبنا الزلال في القول والعمل يا أرحم الراحمين kon nag bismillahi rahmaani rahim téere ngi nii boo xam ne Cheikh Ibrahim junj na sànq ne téere la boo xam ne am na ku ko dajale waaye am na fu mu génnee mooy tënk bu wax ne miinuñ nag di koy faral di jàng ci géew waaye ñun ci suñ peeñu xam naa ci wér ne bàyyi jàngale na jaay ak maa ni xëy na sax benn yoon ba mu xëy jeex te nusxa bii ma amee nii ñaari jus la bii mooy bu njëkk bi bi mooy mujj bi màggatee nii bokk na ci bañ doon dégloo ba bàyyi di firi te bañ paree defe naa ne soo bàyyi kii ko moomoon lii tampon am la lay benn loxoom la daf koy joxaat bàyyi lu soba yàlla ko indiwaat ci man gannaaw gi amiin yaa rabbal alamin lii nag mooy téere biñ tuddee jawahirul maani wa bulugi l amaani fi faydi sayidi abil abbas attijaani radiallahu anhu dafa mel ni suñu mbokk suñu sëriñ sayidi ali harazim ibnu al arabi barada al maghribi al faasi waa faas la woon moom am na ci dundam bi wax boo xam ne dafay jaaxal ñu koy dégg dañ ne mooy xalifa Cheikh Ahmad Tidiane bu njëkk waaye moo ko njëkk a faatu te maa ngi proposé mu am géew boo xam ne fii comme moom moo dajale jawaahir yi ñu beral ko xalka boo xam ne dañuy waxtaanee taarixam ci ak ngoon fii kan la woon nag fu mu nekkoon nag lu mu meloon nag lu mu jëlee ci cheikh ak lijazaam gën a mel ak ak kañ la shahid ndax day gën a leeral rek mbëggeel gi nekk ci ñun ak njokk gi njokk suñuy buum ci buum yi ko jiitu woon nee na nag moom maanaa yim jëlee ci cheikh ahmad tidiane radiallahu anhu dafa rafet dafa rafet ba nga xam ne daf koy nirale urus su jawhar te itam ku ca jaar déglu ko la nga doon mébét al amaani jamooy um niyatu mébét da nga doon mébét am ko da nga ca yegg te nee na maanaa yépp mu jëlee ci cheikh ci faydu ci bëbbal gi nga xam ne mi ngi jógee ci Sidi Ahmed Tidiane yi ci la jógee da nga gis nag ne ku buggee ni moom Seydina Cheikh lu jafe la nga déggee ci ne ku ko xamee ni moom lu jafe la ndax mbëggeel mbëggeel ci yàlla mi ngi tabaxu rek ci xam noo gën a xamee gën a bëgg gën a wekk bàyyi léebal nañu léebu kuy jàngal kum bugg mu yeew bugguñu wax rek na nit nu mu gën a xamee yàlla gën koo wekk nu mu gën a xamee sëriñam gën koo wekk mais gën koo bugg mbëggeel gu àndut ak xam xam nga mbëggeel gu ndaw la mu ne ñu léebkat ba nee na dafa am dëkk soo xam ne xale yi dañoo teel a yeewu mag ña yéex a yéex a ubbi ba xale yi génne nag fekk gaynde gu góor ak gu jigéen ñi ci pénc ma nee na xale yi comme xamuñ gaynde ñu ñëw di war ak wàcce ka di xëcc nopp yi mu ne gaynde gu jigéen gi mer ne gu góor gi te ma fàdd leen waaye mu ne ko teyal mu ko teyal waaye mag ñi ñoom ku ubbi sa buntu seen rek gaynde rek daal di bappe ko mu ne ko waaw kay ñii di daw ñoom kuñ ci tooñ mën nañoo fay waaye gone yi xamuñ ñu bugg laa wax ne xam mooy indi wegeel mooy indi fonkeel mooy indi mbëggeel bu dëgg itam ah téere bii nag moom da nga ci gis lu bare bari booy commencé loo xam ne yëpp xolam ba la ubbi di tagg Cheikh Ahmed Tidiane yi melowum xam rek solal na ko ko waaye bu jógee ca melo yooyu nga xamante nañ jaar ci maanaam tarjumaanam ji danañ ci jaar nam ca jaaree woon bu ne ama baadu danañ ci jaar nam ci jaaree woon waaye boo demee ba ca biir daf lay waxal li nga naayoo fekk ci téere bi loolu itam bindkat mënu koo ñàkk a def ba nga xam li ngay séentu ci téere bi ngay jàng ndaxte li ci liñ ci teel a seetlu mooy chapitre bi baabu la koy tuddee waaye nag bunt bu ci nekk dafa am ñetti faslu bunt bu ne am na ñetti faslu bunt bu ne am na ñetti faslu soo leen dajalee da nga am ci lim la bëgg a jàngal lim la bëgg a tànqal tuuti ci faydu Seydi Abil Abbas da nga ci fekk lu bare bare bare da nga fekk gannaaw muqaddima bi maa ngi ci ñëw ndaxte waxin ba jàng la yar la si la moo tax foog ñu jaar ci waaye téere bi ngay jàng nee na boo ko jàngee da nga ci fekk loo xam ne dafa lay xamal cheikh ak juddoom ak ay waajuram ak askanam ak giiram ak ay mbokkam ak fam sosoo ak tàmbalik mbiram ak mujaahadaam ak sax yoon wi mu jàpp nu mu ca demee daf ca nag ay façon xam ne da ngay fekk ay axwaalam ak maqaamaam bi mu meloo ak matam gi ak siiraam bi nga xam ne dafa yëkkati ko tënku ci sunna ak jikkoom yi ak jëplanteem bu rafet ak mbokkam yi ak xaritam yi moom itam mu def ca ñetti ñetti façon da nga ci fekk tabeem gi ci wax ak jëf ak na mu dooyee góor yiwu ak na mu matale kóllëre ak ragal ga mu ragal yàlla ak itteem gu koya ak na mu sàmmoo ak na mu dëddoo poñetam àddina ak buy waare na mel ak maanaam liberté ci indal aarifina na mu ko melloo moom ak na muy tegtalee ku jokkoo moom na mu lay tegtalee yàlla ak na mu lay na mu lay booleeg yàlla noonu rek lañ ko mën a firi ak na mu na muy màngee nit ñi ci xaalam balaa wax sax ak su waxee itam mu def ci moom itam ñetti fas la nga gis mu wan la nu mu toppalee wirdoom bi ak askaaram yi ak zik ak wax la tariqaam bi ak ña ca topp ak ngëneelu wirdoom mi lan la ak la yàlla dencal ku koy jëfandikoo ku koy wirdo ak sax tàll bi nu muy mel ak xaalam ak lu koy dagg maara di taale ba dootu jokkoo sëriñam ak sax sëriñ nu mu war a mel ak naka la ñu war a toppee sëriñ ci mbooleem mi waxam ak jëfam ak sax booy déglu sax ñuy samaaw noo war a dégloo ak la ca war a tegu ci mboolem guddi yi ak bëccëg yi ak sax ay ñaan yoo xam ne yu wuute lañ ci xam yàllaa ko dawal ci làmmiñu Cheikh Ahmad Tidiane yi yooyu yëpp ak itam xolu nitu irfaan yooyu yëpp da nga ko ci fekk da nga ci xamaale laaj yi ñu ko laaj ci ay ay alquran yàlla nee na nangam loo ca déggee ak ay hadis ak lettre yi mu daan bind ak circulaire yi ak ay waxam ak ay junjam ak li nga xam ne moom nee na moo ko dégg muy bëbbee ci xam-xamam rek moomu di ko noté danga ci jàngale ay karama du lépp waaye tuddee ci ay karama ak ay tasarruf yu mu def ak li nga xam ne sax même ñenn ci taalibeem yi am nañ ko ci ay këchfu yoo xam ne ma ngi ca pegg ba la ko indi pour mu nekk nee na parfum wu jeexaayu téele bi foofa nag nee na soppe bi fa lay amee lam bëggoon maramu wa dëñ moo tax mu tuddee ko jaayalu maani ndax maanaay jógewul ci moom nga yóge ci sëriñ bi te nag boo xasee romb loolu nag daal di dugg nag ci ruyu yoo xam ne muqaddima bi ak baasu téere bi pour nga xam ne li ñuy tëral yëpp dafa ànd ak nit ñi lañ daan tëral te génnul benn yoon sunna ak xam-xam pour barkeelu nag ci baasam ya et foog ñu waxaale kuy jàng téere bi ne lii mooy jawaaru maani mais lii ci peggam mooy téere Cheikh Omar Fouti taalu bi Cheikh Ahmad Tidiane bi jàpp ci ku jàpp ci moom jàpp ci ku jàpp ci ku jàpp ci moom mooy rimaaxu xisbi rahim ala nuxuuri xisbi rajim nga xam ne téere bii mus nañ koo mool te àndut ak rimaax tous lañ ko moolee woon képp moom kenn gannaaw gi nag xam naa yàlla fay Cheikh Omar Fouti ndax liggéey bu rafet bi mu ci def ak xam-xam bu jéggi daay yi mu ci wane ak ni mu dépensé tarixa bi mu mel ni jawaahir mooy urus bi rimaax nag mooy gunt yi nga xam ne paaka yi ak jaas yi koy garde ndax foo fi teg wurus te amul ko ko garde saay saay dugg ci waaye nag rimaaxu bàyyiwul kenn forox loolu moo tax tur ñaari tur yi rek dèjà symphonie la boo xam ne man daf maa yéem ñaareel ba li ñuy wax ahlullahi nitu yàlla yi mooy kat nit koo xam ne rek jëfandikoo na sharia wax léeg-léeg seen waxinu bopp mais lu ñu wax itam boo ko mënee dégg xayrun boo ko mënta dégg tey bu fekkee ne borom pas-pas nga ne la woon da nga ko mos a dégg ëllëg waaye sax même boo ko déggul li ñu déggee ci bàyyi mu ne mag ña dañu waxoon ne tariqa bi gëm ko rek wilaaya la te am na benn naar kilifa gu mag ci gànnaar ba muy dégg rek xabaari sidna Cheikh mu ne kii toog ba ci xarnu ra- rabi ashar mu naan axbarani sayyidul wujud dootu ma tàggu ma mukk parce que li ñu xam ci diw nee na ma mooy koo bokkal jamono waaye mu nekk koo xam ne sa diggante yonent bi ak junne at ak téeméer ak juróom fukk nga door a gane àddina ba mu gàddaay ak léegi nga naan yonent nee na ma te ñu nattu la mu soo wax lu amut mu ne kooku moom dootu tàggu ma mukk yëpp ay jàngale la ñetteel ba Cheikh Ahmed Tidiane mii ñu jëlee ci moom imlaat yii téere bi Sidi Ali Harazim mooy xam ne Cheikh di ko tagg rek di ko tagg rek di ko tagg daanaka wesar bu mel ni woy la waaye nag bu duggee nag ci askanam ba nettali ko ay jaar-jaaram da ngay xam ne fa ñëpp daan jaar la jaar mais yàlla daf ko beral loxo booleel ko ci walladina jaahadu fii naa bëri nañ la nas ya naw subula naa ñëpp la ko dig waaye nag ku ne xam ne ku mos a tukki xam nga ne yoon yi du benn am na ñàll am na autostrade lu nekk am na te waaye ba ko yàlla bëggee def waliyan murshidan daf ko may xam-xamu zahir may ko nag la nëbb te lépp dëppoo li yàlla bëgg yàlla nag teralee tarixam bi teralee ko moom Seydina Cheikh ne ba muy woote paas rek paas a gën a jafe ci dëkk bi paas moo ko gën a jafe ndax ay doomu ndar lañ yoo xam ne kenn yëngu leen dañu mun a jàng bëri ay tarixa bëri ay wëli yu bëri ay suufiyanke ku fa ne ku fa ñëw nag mi ngi mel tey ku demoon rek ba Sorbonne ca Paris nga woo ñëpp tapage leen ci benn idée bu jëm ci littérature wala philosophie nag défier leen nag te la ngay wax wérut xam nga bu ñu la jàppee rek musiba noonu nag si nache ba mu ne cëpp faas dafa fekk faas ngay bëmb moo lay Souleymane di borom xam-xam boo xam ne kéemtaan la ba pare di buuru Maroc di sëtu yonent bi moom moo ko njëkk a xam ne loolu dama bëggoon ñu yóbbuwaale ko te Seydina Cheikh dafa ñëw faas siyaare Mawlaay Idriss ñibbi Sahra mais fekk Mawlaay Souleymane jot na ko seetlu moom moo ko invité at nag mu ñëw ñëw gim toogee kooku dañ ko invité woon Mawlaay Souleymane xam na jikko yi waa Fass mel ak nañ naqaree dara ci xam-xam ak topp nit mu mu dalal ko fenn ne ko bul ñëw pale man maa lay nuy si bañ na gaa yi xàmme ko dèjà bala ñu koo jéem a gaañ te ku war a dem kenn mënu koo gaañ wala su bopp ngay gaañ noonu nag ba mu xëy siiw rek mu nekk taalubeem ulamaaw yu bëri nekk taalubeem moo tax ñu ne tariqatu ilmin wa hidaaya ndax ulamaa yi ñoo ci njëkk ànd amat naa si door a ñëw si daal di xarasim nag moom daanaka sax ni ko yàlla may boo gisee ni muy rabbee arab moom jàngam kéem daan la ndaxte daanaka daanaka jàngul fat fa la am rek si na cheikh moom yàlla dafa jàng bañ na raw na waaw ko tax nag moom ni nit ñi daan def ci seen téere bu njëkk dafay sant yàlla mais rabbaale ci yu bari julli ci yonent bi rabbaale ci yu bëri junjaale gars yi ñi ko tax a jóg nañ mel bu rabbaale ko ci balaa wax amaa baax du rek dèjà yow yow yow naan mandi nga alhamdulillahi alladi afaada ala awliyaihi wa ahibaihi wa asfiyaihi min annuuri alahmadi anwaara واصطفاه من مكنون سره وجوهر علمه ودره معارف وأسرارا وحلاهم بحلية سنائه وحلل جماله وبهائه وأطلعهم في سماء التوحيد أقمارا loolu la koy topp sajo ba nga xam ne yow da ngay fa waa ji littérature rek rek rek la xam léegi nag firi jumla la ñuy tàmbalee wala firi baat leeral jumla.
fii nag man damay tànn mu nekk firim jumla.
kon nag li mu ubbee téere bi. mooy sant yëpp mu delloo ko yàlla moo ko moom mi nga xam ne li tax ñu koy sant mooy awliyaawoom yi dafa bëbbal ci ñoom.
nit ñi dañuy jàng dañoo bëgg ko ci par baax. par baax par baax par baax moo gën a baax ñëpp a ngi seen seen seen ñëpp nañu dañuy jàng seen par baax moom dama laa bëgg.
waaw si rek léegi léegi nag ñu def ko au revoir rek par jumla wala par baat.
par baax.
la jiitu woon. ci téere yëpp dañ ko doon jàng par baat. yaakaar naa ku ciy bëgg a gëstu loo dégg ci arab liñ jot a jàng yëpp noonu la bii nag dafa ànd ak ay mbir yu bari yu xóot yoo xam ne. buñ ah bon bëggee léegi defar baat bi jafe moom ngir ko waaw buñ yegg jërëjëf ñu ànd ak Mamadou ci loolu. boo yeggee ci baat bi.
xam nga bu ñu doon Ibrahima Ba dañu naan dañu naan alhamdulilah mboolem xàccant yi ñetti lay ñeen la yàlla mi nga xam ne alladi yàlla mi nga xam ne afada bëbbal na ala awliyaayihi ci waliyoom ya wa ahibaa yi ak soppeem ya wa asfiya yi ak ñam tànn bëbbal jëlee fan mi ne nuur yi jógee ca leer al ahmadi gay ko jóg ahmadi ya anwaaroon ay leer xam nga foofu après nag fu nga delluwaat jumla ji waa dina jël temps nag li- bu dee par jumla da nga naan gërëm na yàlla mi nga xam ne la mu ko gërëmee mooy dafa tànn waliyoom yi sotti leen tànni soppeem yi sotti leen tànn ñim tànn sotti leen ca leer ak xaqiqa ahmadiya ay leer yu bare bari yu bokkul couleur
ci gis nag baat boo bëgg a xam.
wa soxaam tamu tànn leen min maknuni sirrihi wa jawhari ilmihi ca mbóotam fa mu nëbb mbóotam ya ca hurusu durr yam denc ci xam-xam mu génnee leen ca ay maarifa ci yàlla ak ay mbóot yoo xam ne ku ko yàlloo ñu wax ca yow ku ko yàlloowul ñu dof dof lu ba nga foog ne xamuñ dara waxallaahum te mu takkal leen maanaam jox leen takkaay décoré leen bi xilyati sanaa'ihi ca takkaayaa moom leeram nga moom yàlla la waxallala te mu tekkil leen jamaalahu taaram ba wa bahaahu wa wa xulali jamaalihi wa baayi ak ca colwaayu taaram ba moom yàlla ak taaram bu jéggi dayoo boobu atlaahum te mu wan te mu fenk loo leen ñoom awliyaaw yi fi samaay tawxiid ci asamaan sa moom wéetal yàlla la wéetal ak dëgg ak maaral ñuy ay weer yoo xam ne xam nga jant mënoo koo xool ndax sa bët du ko attan wala yu nag nee na foofu moom weer la weer mën nga koo xool ndax bële day fukki bët bii nag dafa leer te sedd nga xam ne tëbb bu jógee tàng tàng ca zaatu bu jaarul ci pay bu ko seddal mooy indi caxaw caxaw yi ngay dégg fastadaat bi anwaarihim alxaliqa leer gi yàlla may awliyaahu ci la mbindeef yi ñoom jumoo ba leer te boo ko seetee kenn ku nekk ci ñi nga xam yow fa mu fenk ba mu fay laata fenk lan moo fa nekkoon ay la dem ak sàggan ñëw naa ba keroog moo xale boo xam ne ku baax la te fekkewul bàyyi te bëgg naa xam ma ne ko dama laa bëgg waxal lu leer loo xam ne ñun dañ koo fekk mu bëri na muqaddam booy dégg tey bu jógee bu gaañu toppee ko mu riir boo ko fekkee dëkk mu ëpp bàyyi foofu ay yëngatu ku ba muy jàpp ci bàyyi kenn rek la ci nit ñi ma ne ko bàyyi moo ca feeñ wala ku ci toog doo doo doo ziareeti te amoo ci ndigalal xaas da nga ma jàll da ko doon wax kenn ngir lenn waaw wa salaku bihim min addiini tariqa waliyu yi ñi leen gëm topp leen ñoo leen dugal yàlla def ci yoonu diine yoon wa leen cay may njëriñ tariqa wa tabawwa'u minhu watanan wa qaraara képp ku leen topp ci diine bañ sóob la da nga dañu mujj def mbaax mu nekk sa dëkk ba nga dëkk sax fa doo bugg a toxu te itam doo wéet yépp xam nga ne ay kinaaya la ak ay jegeen wa saaru li saalikiina hidaayatan wa ilman bilmahajjati wa alaman bilmahajjati wa aaya alaman bi yàlla defee wali yu noonu ñoom ñoo mujj nag ku soobu jëm ci yàlla ñoom ñooy sa guide ñooy drapeau bi ñu yëkkatiku ba nga xam ne doo réer ci yoon wi ñooy tegtal bi reewoon na mbir mi nii la wa barazu bi kulli wa barazu bi kulli laaxiqin manaara ñoom dañu dañoo barazu yàlla daf leen génne booba ñu ne fang képp koo xam ne ñëw nga gannaaw ga gis leen ñuy manaara boo xam ne ci ngay xamee ne fii la woon boo gisul bàyyi gis yàlla yi boo ko gisul gis as boo ko gisul gis Ibrahima boo ko gisul gis Moodu moom tëbb gi dootu dootu dootu dootu dagg kulli laaxiqin xam nga saabiqu moom dem na fekkoo ko fi may laaxiqu moo ko taxawee moo tax bàyyi doon ñaan yàlla ne ko naalal munaa man qad ataani awala wa axiran ya axiran ya awala yow mi njëkk mujj ku njëkk ñëw ci man yàlla na am lam lam doon bëgg ku mujj ñëw itam na am lam doon mébét ndaxte comme yaa tax ñoo tax nga jóg te yow yaay awalu yaa axiru jamono dootu am foofu lu mu jeexital ci ñëw falawlaahum maa salaka min til maa salaka maa sulika min tilka subuli fijaajuha wala quwima min dilci nufuusi wijaajuha bu toxtoo nag awliyaullahi al aarifuuna yooyu yàlla préparé noonu kon yoon ya jëmee nit ñe fa mbaax ak yàlla yoon yooyu kenn du ko sóobu te itam bakkan yi nga xam ne amoon na ay dëng-dëng ki tolof tolof kenn du ko jubbanti waaye nag bakkan dafa doon yet woo xam ne woowagut ñu ruut ko ci gëlëb tarbiya jubbanti ko mu jub bu toxtoo nag gaaña ñi xas pare ci yar seen bopp ñi ñëw duñ am kon fuñ jaar fi jaajuwaar اعوجاجها يعني ولا تبين لها الهو... ولا تبين لها الهدى استبصارا نيكون تام ني موجا نيو يون هدى تا موي لب لو باخ سي ديني ظاهر لو باطن نيكون دون مونا ام جيس بون كو جيس بام لات نيوم فسبحان من خصهم الح... ال... بالحكمة والنور neena maa ngi sàbbaal yàlla mi nga xam ne jagleel na awliyaaw yi ñu xam xam-xam buy jëriñ mooy xikmatu jox leen itam nuur xikmatu yàlla nee na woon yuutal xikmata faqad uutiya xeyran kasiran am na sëriñ bu gaarowaale bàyyi bàyyi tontu ko waa ji ne wa maa uutitu min al ilmi illa qalilan di gaarowaale ci njëlbeen fay dagam bàyyi na waaw ñëpp lañ ko wax waaye nag am na ñu ñu wax woon yuutal xikmata faqad uutiya xeyran kasiran waaw dégg yi bokkut nuuru leer ci diine dana firi xam dana firi barke dana firi njëriñ mais nuuru ci ahlu tasawuf bu xasee boo xasee nekk aarif nuuru mooy am être lëndëm mooy néew te yàlla nee na mooy nuuru samawaati wal ard wa sharaha bihim alquluba wa sudur awliyaaw yi yàlla neex mu ubbi xol yi ak dënn yi leeral ko bégal ko ci ñoom wa jaalahum li diini awaanan wa ansaara mu def leen ñoom awliyaaw yi ñuy ndimbali diine di di di di di di ñi taxaw diine wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin alladi min faydi bahrihi yaxtarifoon wa min rawdi ma mawaahibihi yaxtatifoon nee na mi ngi julli nag ci suñ sang bi ki nga xam ne mooy kilifa gi suñ kilifa muhammad mi nga xam ne ci faydu bi jógee ci géejam gi ci la awliyaaw yi di tànqee di ñu jox kon nag géej la ak faydu géej gi ñu tànq ci ñoom jox ñu moo tax bàyyi doon ñu wax ne al muttasilu bil muttasili muttasilun boo branché ci dynamo bu paanut foog nga am électricité foog nga am courant wa min rawdi mawaahibihi yaqtatifuuna te toolu dëru may yaa moom yàlla nga koy may mbindeef yi jaarale ko ci yonent bi awliyaaw yi foofu la ñuy sàkkee meññet yëpp yéen yéen ci déggee tëbbu ak jëriñu ak jokk lim nekk waasita bayna alxaqi wal xalq lim nekk xaqiqatul muhammadiyya wa yajtanuuna simaaran wa azhaara te itam ba tey foofee la ñuy sàkkee meññet yi fa la ñuy itam wottee fleur yi xam ngeen am na meññet ci yàlla am na fleur itam ndax melo yi ay melo lañ jëmm ji jëmm la jëf yi ay jëf la tur yi ay tur la moo tax tur yi day bari melo yu bari couleur yu bari waaye yëpp nag mu nga tëbbee ca waasitatu boobu nga xam ne mooy maanaam kanziyatul kunuz sallallahu alayhi wa sallam wa min nuurihi yastamidduuna wa anhu yarisuuna wa yastabidduuna ci leer ak yonent bi la wali yi di tëbboo te itam ci moom la ñuy donnee wa yastabidduuna wa yastabidduuna nag jar naa taxaw ndax istibdaad mooy jël dara daadaarloo ko kenn dootu ci mën a jot maanaam baatin bi la jublu luñ lu ci waaye xas donn te muy donn gu dëgg dootoo ko ñàkk waaw dafay doon sondeel boo xam ne nit mën na caa jumu sondeel am mais yaa ngi sondeel ba tey demet nag yësta bi duuna jeex na bu xa boo xasee dugg rek du génn waaw moo tax benn waay dégg ñuy soow benn jamono ci xaw ma Bagdad mu ne ñii lan la ñu ne ñu ne ah ñoom di ñu ne dañoo egg mu ne waat naa ne buñ eggoon duñu wàññeeku gëstu bi duur wa alayhi yaxuumu kulluhum miraaran mu ne ca tëbb googa ak wiraasa googa wali yu yëpp fa la ñuy tourner autour rek duñ bàyyi mukk nag seetal wasifa suba wasifa ngoon ci ku koy def seetal wasifa suba seetal wirdu suba wirdu ngoon seetal julli bistimraar seetal askar yi seetal awraad yi seetal daje ngir yàlla yi xam miraaran maanaam ñu départ la sa dootuñ taxaw فما من نعمة واصلة أو رحمة متراسلة إلا على يديه أرسلت مدرارا amul benn xéewal buy egsi ci jaam yi wala benn yërmaane buy dotteeku lu mooy ci loxo yonent bi la ko yàlla jaarale muy sotti rek nag mel ni taw midraaran fa huwa baabullahi alazim moom yonent bi mooy bunta bi yàlla bu mag bi wala bunta bi yàlla mu mag mi wala neexee nga je- nga jox qualification bi bunt bunt bu mag la moom yonent bi mën naa boo neex nga jox yàlla melo yi mooy bunta bi yàlla mu mag mi donc bunta bi yàlla bu mag bi wala bunta bi yàlla mu mag mi wa siraatuhu almustaqim siraatu mustaqim bu ñu koy waxee rek xamal ne mooy yonent moo taxoon bakri borom salaatul fatihi bidayatan ne ko anta baabullahi ay yumrihin waafaahu min xayrika la yadxul yaay bunt bi yàlla bi ku jaar feneen da ngay wiir wiir mais doo dugg mukk dégg nga wa xaysuhu naafiu iksaara ba tey yonent bi mooy taw bu am njëriñ bi dotte koo jógee ci yàlla ndigalam ngir bëril ngir bëril falawla talaatuhu alkarimatu wa imdadatuhu alamimatu alfatihatu quluban wa absaara ma statcama laziza alwasli wa naimahu ma stutcima wala urifa kaasu lxubbi wa nadimuhu bu tax soo nag moom yonent bi fenk gi mu fenk ci asamaan yi tëbb ak tëbb yu yu mat yi yu matale yi nga xam ne mooy ubbi xol yi ak gis yi kon kenn du mos caf nga jokku ak xéewal yi yegg te kenn du xam kaasab cofeel ak ña géewab ña koy naan lu mu saf ak nuñ mel loolu yëpp mi ngi daloo nit ñi ci fatih li ma uxliqa ñu xam ne lu fi waay am ci moom la jaar xam nga nag borom sajo ak borom bind dana àbbal dana nirale waaye lu melo ya bëri bëri bul fàtte ko moom wala stanshaqa sabbun min shamimihi araaran nee na bu taxatoon ak moom sabbu aji sopp du du foon mukk gàncax ga ñuy wax araar di fàttali tamatta bi shamimi araara najtin la ab benn gàncax la rek boo xam ne ñu dëkkoon naj ñoom dañ ko fonk gàncax gu tuuti la mais waaja di tukki ne bala ngaa départ fóonal gàncax gi ndax xamoo gannaaw tey boo départ tey rek dootoo ko fóonal fekk ñëwaatoo fii day léeg waala bon waala alihi almukammali sharafuhum bi sharafihi wa kamalihi assaamina majdan wa faxaara وعلى صحابته الأبرار المنتخبين الأخيار مهاجرين وأنصارا بم كوماسي بم كوماسي أنوارا بنيم إكسفي يب من كو داف قافية أفعالا أفعالا جرا ñi ni jàngut mu ne wa baadu gannaaw yi ma wax yépp ci sant yàlla ak julli ci yonent bi ak junj yi ma ci def fa inna min ahsani ma yusrafu ilayhi yasrifu ilayhi al insanu ihtimamah ويصرف ويصرف فيه لياليه وأيامه ويعمل فيه فكره وأقلامه ويجعل ذكره نديمه ومداده ومر ومرامه دف سياق راقي دف دير ومرامه ويتخذه محراب وجهه وإمامه ويقصد فيه سمته وأم- وإمامه ويقتني ذخره الأسنى ويجتلي بكره الحسنى ويقتبس من مشكاة نوره ويستضيء بشموسه وبدوره ويرتع في خمائله ورياضه ويكرع من موارده وحياضه ويتضمخ منه بأزكى عرف وطيب ويتذكر به المنزل والحبيب من المويلة محاسن أهل الله الأولياء ما نام قولal na xabar ja sore li mu bëgg a wax rek mooy ba mu ne amma baadu neen li gën a rafet li gën a am solo ci lu nit di sonne mooy taar yi yàlla jox nit yàlla yi mais nag yi ci diggante bi yëpp nag mu dugal ko ci nee na li gën a am li gën a rafet ci loo xam ne nit dana ci dépensé itteem mu nekk itteem guddeem ak bëccëgam mu jeexal ko ci ay guddeem jëfloo ci xalaatam ak xalimbaam tudd ga rek mu def ko muy ki koy wéttale def ko muy lam sàkku fonk la mu war a fonk ba nga xam ne daf ko mel ni mihrab boo xam ne ci lay jublu ni muy jubloo ci julli def ko muy élimaanam jublu ca maanaam lépp luñ koy xàmmee mu soppi ko loolee jëlee ca ndëxañteef bi gën a yëkkatiku feeñal ca taaru xiif ba gën a mag mooy mooy mooy kum sopp muy ku ndaw di ca di ca jumoo ay leer di ca sàkkoo lu jóge ci leeru jantam ak weeram bu fekkoon ne moom dafay dafa doon kuy kuy kuy sàmmal wala moom ci boppam muy faral fa muy faree ay dël di ca naan ca naanuwaa yooya ak mbarka yooya di ca riixu di ca parfumé wu la gën a neex ci xet di ca fàttaliku fa soppe ba nekkoon ak fam ko xamee woon nee na loolu daal li ci gën a am solo mooy maxaasinu ahlillahi taari ñooñ yàlla al awliyaay ña di ay waliyu wa xaasatuhu ak ñay xaasam al asfiya maanaam téere bi mbiram wilaaya la ciy wax ak nit yàlla yi te boobu liggéey nee na mooy liggéey bi gën a am solo lu waaye di def ci xalimba ak làmmiñ ak cofeel ak bëgg lu mel noonu moo ci gën a yey loolu li jumla ji gudd gudd loolu la bëgg a wax ñooy ñan mu ne xisbillahi ñooy mbooloo mi ànd ak yàlla wa ahlu xadrat yi ñooy waa péew yàlla alfais yi na ñi nga xam ne way texe rek bi shuhud yi ca teewlu ga ga ca seedu ga seedu taaru péew yàlla ba wa nasrat yi ak ak ña nga xam ne ñooy barabu xoolu yàlla al majzubina ñooy ña ñu xëcc ci inaaya ñu jëm ci yàlla ilayhi wal mahbubina ak ña ñu sopp la day fa yàlla alwaaqifina ña di way taxaw bayna yada yi ci kanam yàlla wala aakifina ña di way sax ala yi ca foofee asajidati ña di way sujood lillahi ngir yàlla ala dawaami ci sax nag xulubuum ay xol seen ñi nga xam ne seen xol yi dafa sujoodal yàlla te dootu jóg wal xaafisatu li ahdi yi ñi nga xam ne ñooy wattu kóllëre ga sarmadan abadan maanaam shahaadatuhum seen seede wa xuyubuhum seen fekkee wa xuyub wa xuyubuhum ak ak faddu seen ñooñu nga xam ne ñooy madahiru ayatil Mustafa ñooy feeñuwaayu kawte fi yonent bi wa nuwaabu te ñooy way wuutoom alxulafa ñoo ji xulafaaw yi alwaaridiina ña di way rot min manhalihi ca naan waayam ba al arwa kay gën a mandal wa shaaribiina ñoo di way naan min hu ca boobe naan waay zululan maanaam naan bu neex safwan ci sell ba tey al mutaxalliqiina way jikkoo ña bi siyam yi ca jikkoom ya wa xilaalihi ak jikkoom ya ba tey wal muttabiina ña di way toppali aqwaalihi wa afaalihi ay waxam ak i jëfam fa ila samaai dikrihim tartaaxu lxulub xol yaa ngi xol yaa ngi noppaloo bu ñuy dégg ñuy tudd seen mbir wa tashtaaqu bihi ila allaami lxuyub te loolee day tax xol yi namm lépp lu jëm ci taarab yàlla mi allaamul xuyub wa tantashitu bi dalika min iqaaliha te mi ngi mel ni xol yi dañu leen jëng ci xijaab waaye déglu awliyaaw yi mooy tax ñu fecci tënk yooyee tantashitu li fiali taaati pour jëf topp yi wa adaaya ak jox ko ci waxtoom mu ne fa inna kasiran min annaas ñu bëri ci nit ñi xamalahum yan na leen dugal na leen ala dalika ci loolu xatta asaara minhum al azm wal quwa ñu bëri ci nit ñi amuñu woon dogu amuñu woon takkaayu gannaaw maanaam avant ñu déglu awliyaaw yooyu bañ leen dégloo lañ am azmu lañ am yitte ba pour pour maanaam wagu tashmir wa balagu ila an xaasabu anfusahum ala naqir wal xitmir ñu mujj dem di dem ba ñoom ñooy mujj sitaab seen bopp même bu dee mbuum soos nga gis ci tàndarma wala bën bën soos ci tàndarma sax buñ ko defee ci sàggan ñooy xisaab seen bopp duñu xaar ku leen xisaab ñooy yedd seen bopp duñu xaar ku leen yedd walam yardaw minha illa bi luxuuqi bi maali umuur dem nañ ba nga xam ne ku déglu waliyu ànd ak moom te yàllaa ko mel noonu ma waxoon léegi doo mun a gërëm lu mooy rek lépp lu yëkkatiku wal musaara ak yàkkamti gaaw ila ma tuhmadu aqibatuhu jëm ci lépp loo xam ne mujj gu rafet moo cay nekk bi daari surur ca aljanna mi daaru surur wa nazzahu te ñu sellal ñoom taaliba yi ngir topp waliyu yi jawaareexum ay ceeb seen an dana sin muxaalafaat walis tir baa moom maanaam tilim baa moom wuute yi la ak ndigal yi wartikaabi sayiaat ak toggoo jëf yu ñaaw loolu bàyyi nañ ko ngir déglu gi déglu awliyaaw yi wa qaamu te ñu taxaw bi wadaifi diini ci liggéeyi diine min fiili mamuraat ci jëf ndigal ya wa ijtinaabil manhiyaat ak teet yañ tere wa jaadu te ñu tabe fi rida mahbubim ngir sàkku ngërëmal seen soppe ya bil seen soppe ba bil arwaaxi ci bakkan yi wa nufuusi ba tey maanaam bëgg yàlla mi nga xam ne mooy seen mahbub tax na léegi waxatul joxe alal mais bu laajee joxe roox ak bakkan ñu joxe ko wa talaqaw te ñu jël recevoir maa jaa la ñëw na an hu jógee ca moom alal ak ku fi wa ruus lu leen yàlla jox ne defal wala ñàkk def ba leen ko def ñu jël ko waxu seen loxo sax waaye ñu ngi koy jëlee seen bopp yi fa saarat te mujj axbaaruhum seen i xabaar wa chamailuhum ak seen i jikko tut laa def na jàng ko wa tuktab def na bind ko fi turuusi ci kayit yi faqad balaganaa dégg nañ ne an baadihim jëlee ci ñenn ci nit yàlla yooyu annahu naka moom qaala wax na ne wallahi la uzaaximanna asxaaba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi afaalihim xata yaalamu annahum qad xalafu waraahum rijaalan rijaalan aw kama qaal mu ne ba dégg nañ kenn ci góor yàlla yooyu mujj gi di wax naan giñ naa ne dinaa rëj rëjloo ak sahabatu rasul alayhi salaatu wasalaam ci seen jëf yu baax ya bañ xam ne bàyyi nañ seen gannaaw ay góor ñoom itam dégg nga mu mu ne wala nam ko waxee mu ne fanzur seetal nag yow rahimakallah yal na la yàlla yërëm ila hadi lhimmati jëm ci itte ji al aliya ji kowe ji nit ku dem bay rëj rëjloo ak sahaba yi ci li nga dégg ne noonu lañ meloon te loolu la mbindi yu mel nii di jëriñ kayfa lam tarda illa bi rutabi saniya himmatu boo xam ne dégg nga de dem na ba dara doyatu ko lu may rek matt ba bëgg na kawe mu ne wa ma daaka te déet loolu illa xiina samiat bi fi'li al awail te kat dem bay rëj rëjloog saaba yi dara mayu leen ko lu may déglu nañ ñi fi jiitu woon niñ daan def ak niñ meloon ishtaqat mu dal di sopp jëm ca roy leen wa saxiba te ànd ak moom nag attanaafusu xëccoo ko ci lu baax wa fi dalika fal yatanaafasil mutanaafisun fa jëddat te mu takku nag fi talabi dalika ci sakku yooye yëf yu baax qaala allahu taala wa fi wa fi dalika fal yatanaafasil mutanaafisun mu ne loolu moo tax yàlla di xiir nit ñi ne buñ demee ba gis lu baax ba mu wóor leen foofu la xëccoo jot ku ci nekk fexeel ba yaay jiitu sa morom waaw ndax nit boo ko ñëwee da ngay fexe am lam am fexe koo jiitu soo ko añaanee nag da ngay bëgg mu ñàkk lam am moo tax xasadu mooy tamanni zawali niamatil xayri bëgg ka am xéewal mu ñàkk xéewal ga mais ixtibaar nag wala ribtatu mooy nga ñee ko jéem a ut lam ut jéem a am lam am te te yéene nga ko mu am lam am mu ne mu ne nag allahuma arzuqna himmatan aliyatan tuballiguna biha ila kulli amrin mahmud wa niyatin sadiqatin tahjizuna biha an kulli ma yujibu sudur moom nag Ali Harazim mu ne yàlla maa ngi lay ñaan yow borom tur yi sell yeeg melo yu rafet yi yàlla na nga ñu may yitte ju kawe kawe boo xam ne ca nga ñuy mayee ñu egg ci mépp mbir muñ sant nga may ñu yéene ju dëggu boo xam ne ca ngay jaar ba dox suñ digganteeg lépp luy indi ñu jox ñu gannaaw gannaaw buñ jokkoo mu daal di indi nag benn bayt ne in shi'ta neem soob na la annaka naka yow tasfaru da nga tuufu maanaam da nga am da nga yegg da nga da nga réaliser li nga bëgg fa ku nekkal saadiqan di aji dëggu fi xubbika ci sa cofeel soo bëggee sa sa objectif bi la tax a jóg nga am ko ci yàlla li ngay njëkkee nekkal saadiq an saaqi azmika shammir te na nga na nga wokk sa sa sa sa na na nga wokk say say sembaan xam nga mënuloo am waramba da nga di xuus ci géej dagatu wogul ba mun a xuus wan bis da nga sànni jami al alaayat lépp lu war a gàllankoor sa digganteeg li la tax a jóg mu ne mu ne sirrul muwaali mbóotam ñi nga àndal maanaam awliyaaw yi maa yadhar du feeñ du feeñ illa ala man huwa aashiq duñ ko woon mukk lu may ku sopp soppeel gu dëgg-dëgg bu ko defee ñu naan dëggal ak dëgg fekk ñi ñi dëggal ñoom xam nañ ne mi ngi ñi dëggalagul ñoom ñu ñuy werante am naag amut mu ne fa haadihi yii ma la junj ayuha almuhibbu yow aji sopp ji faidatun njëriñ la boo xam ne mooy faidatu wujudihim mooy njëriñal am gi ñu am ñoom waliyu yi yii ma la junj yëpp moo lay won ne awliyaullahi ñi yàlla def loolu daf leen ay ay weer daf leen ay ay jant daf leen ay leer may na lim leen may ba taalu bi jaat ñoom ba yi mu wax yëpp nee na lii njëriñ moo moo moom la jokkoo ak waliyu loolu lay jëriñ mooy faidatu wujudihim wa zuhurihim ak feeñ giñ feeñ parce que ñaari yëpp am ñu ñu ñu ñu exister ak ñu feeñ waaw ñu ñu exister amul werante waaye danañ fi nekk te doo leen gis moo taxoon bàyyi di laay biir ñëpp radiyallahu anhu di wax nag kuy def koo gis ne du waaja da nga dajeeg waaja te doo ko doo ko xam ku def koo gis teg ko waaja du la wàññi dara faidatu wujudihim wa zuhurihim wa samaai axbaarihim dégg seen xabaar yi itam loolu lay jëriñ ala wajhi l ijaaz wal ixtisaar mu ne dama koo gàttal sax résumé ko waaye yooyu yëpp mi ngi lay wax ne li may bind si ci Cheikh Ahmad Tijaan yi loolu laa ci jublu ndax n'importe quel waliyu te loolu amul sax ci wilaya waliyu bu mu mun di doon rek ak daraja bu mu mun di nekk rek déglu ko day jur yi mu wax waxantuma xaatimul awliya yi mu ne daf ko gàttal nag ndax laa yeneen wa maa yaalamu junuuda rabbika illa huwa li yàlla mobilisé yëpp ci ay xeeti soldat moom rek xam nuñ toll junuuda rabbik mu plurielu jund subula naa mooy pluriel sabila naa comme